doyal nañu sëkk ndax saa yu ñu programmé procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang daanaka duñu liggéey ñoom ñooy livreur yi ñuy woowee cak-cak ak seeni client waaw ah, loolu moom bàyyi ma def ko sama code secret rek ndax des fois moom affaire yi moom wax dëgg ñu si gis suñu bopp quoi parce que tamit dinañu tere ñu bañ a dem sàcc dinañu tere ñu bañ dem dugg si loo xam ne suñu yoon nekk si waaw man moom loolu moom su ma ko déggee wax dëgg yàlla du neex quoi parce que ñun moom caque cag la ñu am pour les sangum si lañ nekk pour tedd suñu bopp quoi pour dimbali tamit suñu waa kër parce que tey cag-cag bi si lañ nekk nii pour daan suñu doole mënuñu dem fen tamit moom lañ am quoi kon chaque à chaque fois bu projet amee ñu bëgg a wax borom bouteille bu leen daw dañu yàqal presque suñu journée bi yëpp kenn du xam lan lay ban façon liggéey lañuy liggéey quoi wax dëgg tamit day metti suñu côté xam nga ñu toog benn journée te génn ñu demuñu dem defuñu dem dem dóoruñu quoi moo tax xam rek buñ dóoriwulee dañuy metti ba pare duñ am l'argent de ponce duñ mën li jënd suñu bopp waaw waaw waaw ba ma a ñu xoolaat ko quoi que lii tamit c'est pas normal que à waxee waxu projet rek ñu bëgg a arrêté borom bi nga xam ni Korité bay ngi ñëw dañoo war a lijjanti suñu bopp mooy loolu ndogal bi gouverneur de Dakar di faral di jël bu procès amee ngir ajandi seenub liggéey bésub lëmm mi ngi leen di yàqal deux rues yi yi baax nañ ci dëkk bi ndax deux yi dañoo nekk si dëkk bi en même temps ñu ngi participer ci dëkk bi nit ñi yàq nañ nit ñi seen liggéey ci ay zéro deux rues yi ñun livreur dañuy soxla deux rues yi gars yi yëpp dañuy soxla deux yi dañuy xëy man mii sax deux rues laa maa ngi xëy damaa xëy bàyyi sama duur kër ga jël oto ñëw fii ci ci ay procès yoo xam yu ñàkk fayda ay diffamation dix heures laa xëy si fii nit ñi bu dul bu dul deux rues yi sax nit ñi dañuy yàq nit ñi seen liggéey ci ay zéro rawatina imaginez marché HLM marché Petersen ni ñuy nar a ñëw xëy jël di xeex wala nekk fii di kii yàqal nit ñi seen liggéey ci ay zéro dara jëru ko dañuy obligé bàyyi ko ba demee rek ndax déjà boo demee ñu jàpp la boo demee ñu jàpp la da obligé ba say liggéey sa liggéey mooy tardé rek liggéey taade ci ay zéro xam nga ni jëru ko. day def manquant lu bari nekkul ci man kese ci ci ci dëkk bi yëpp day def manquant lu baree baree baree bari jëlaat dëkk bi def ko ci yoon. xam tamit li nga doxal dëkk ñu bañ a dëkk bi bañ a nekk injustice ku nekk xam na li liy doxal dëkk ñu ànd si te bañ a nekk ci par parloo état boo xam état bi tamit ñu xamaat gën a taxawaat jeunes yi ci liggéey bi jàppalewaat leen tamit si kii ci doxalin réew bi loolu la ñuy ñaan. maa ngi livré depuis euh, war na mat quatre ans wala euh, trois ans daal. waaw maa ngi si gis euh, sama bopp bu baax. parce que maa ngi fay sama luwaaye amul benn fu ma mës dëkk borom kër gi dama teg soog parce que saa yu ma xëyee yàlla sunu borom dina ma jox benn affaire boo xamante ne dinaa ko mën a yóbbu sama kër euh, bokk ba maanaam li may jox ma mun see bokk sama soxna ak ñi ma ko war a bokkal aussi maa ngi fay samay soxla yaa ngi dégg. waaw mais jaxul mënul jax parce que dëkk bi euh, dëkk bi dafa doy waar parce que li nekk si dëkk bi kenn mënu ko wax. maanaam dëkk bi léegi kenn ñemewutul maanaam dangay gis ne sax yow léegi bu ñu la woowee livraison yenn zone yi da ragal parce que dëkk bi amatul sécurité comprendre dëkk bi da ngay dox mais yaa ngi dox wala nit bu la jegee sax yaa ngi xaw a suuraale maanaam dëkk bi nit ñi jamono ji yow da ngay yaa yéen a ngi wax waxi procès mais nit ñi ñoom ñoom ñoom ñoom seen jëmmi bopp seen xel dalatul mais xaw ma parce que tey jii ne dëkk am na nu muy doxee loo xamante ne du baax ci population bi. maanaam balaa dara jàmm jàmm loo ko jëndee jar na ko soxna si nii Ousmane Sonko nii président Macky Sall nii keneen ak keneen ñun ñëpp ñoo far parce que ñun ñëpp si yàlla lañ jóge comprendre ala kulli aali dañuy dem te buñ fiy dem amul dara lu ñuy yóbbaale te bañ fi ñëw indiwuñu dara comprendre waaw parce que tey jii ne doo gis doomu ministre buy càccak doo gis doomu procureur buy càccak doo gis doomu gendarme buy càccak ay doomu baadoo la ñooy càccak maanaam ñoo xamante ne yoruñu ñoo xamante bu ñuy xëyee su maanaam suul bukki suul bukki maanaam da ngay gis loo xamante ne tey ji nii ah tey man su ma yeewu sama ba ma yeewu sa tey sa ba may génne sama kër man leer na leer na ma ni essence sax aw ma ko lépp dañ koy dénk yàlla mais tey lépp loo dénk yàlla dafay nekk loo xamante ne dëkk bi tey ñu am ay cadre yoo xamante ne tey jii nii maanaam yow jaay jaaykatu caaf bi sax day gis boppam si dëkk bi ah parce yaa ngi xalaat daje police mu jàpp la su fekkee ne yow bàyyoo dépense kër nga yor la si 1000 francs wala yor la si mil nga daje police mu jàpp la nooy def amoo essence nooy def soxna si da ngay woyee di ñoom ñoom ñi yor ay Sénégal ñoom ñoo ñu war a jàppale te xam ne jeunes yi ñu mënuñu dem États-Unis man tey bu ma dégaloon boo ma dégaloon tey visa États-Unis du ma dem pourquoi parce que bëgguma bàyyi sama jabar mu nekk souffrance maanaam même bu dee 1000 francs laay am sax damay continuer nekk am moom fii nii parce que man loolu noonu moom a gën a lu mu am comprendre mais tey projet bi chaque jour ab projet bu bees mais tey nit ki dem ngeen yoon jox na la dëgg mais si si yoon yow xaalis nga doon soxla jox nañ la xaalis mais problème war na jeex parce que amul lu dul jeex moom maam may ñaa lay waxal man Mouhamed Seydi maa ngi wax ak yow ngir yàlla rasulullahi même boo xoolul keneen ak keneen mais xoolal jeunesse même bu dee amul ñoo xam am na ñoo xam ne dañ ko bëgg moom moom may ñaa muy man man dama ko bañ parce que liggéeykat la mais ñu jàppale tey ku ne nga xamante booy xëyee liggéey di nga am bu dee benn 1000 francs ñibi lii mu jeex lii mu jeex man maam may ñaan si boppam lay ñaan maa ngi koy ñaan si jëmm jëmmi naa Mouhamed parce que keroog dégg naa ko muy wax benn aaya si alxuraan man dama dama dama maanaam dama sopp nit boo xamante ne day gëm diinam man dama koy ñaan te yàlla tax ngir yàlla rasuluna na bàyyi lii mu sedd parce que aduna amul dara fii lépp day jeex man moom lay ñaan moom maam may ñaan xaw ma ko xamaanu ma ko xam nga Ousmane kër Ousmane Sonko man xam naa ko mais kër maam may xaw ma ko mais man moom lay ñaan mu bàyyi lépp mu sedd te xam ne xale yi comprendre ñun ñoom ñoo ñu mën a jàppale ñoom ñoo ñu mën a jàppale parce que ñun ñun ñu ngi si dëkk bi dañuy daan doole voilà. ay bi ñu ay moto yi ñu daw du cag-cag yi rek lay yàqal ndax waa ji du livreur waaye circulation bu xat bii ci ndakaaru moo waral moto lay jëfandikoo. waaw en fait euh, comme ni nga ko wax léegi tout rek c'est un peu compliqué parce que cag-cag yi ak lu mu munti demee rek. affaire yi seen gagne-pain la te genre événement yi bu amee buñ leen ko teree c'est sûr et certain ni xam ba day impacter su ñoom directement mooy ko di ci côté ñi nga xamante ni ñoo utilisateurs yi ko ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ciy def sen ba ñoom ñoo ko utiliser comme moyen de business affaire yooyu moo tax daal xam ba rek suñu sañoon daal yu mel nii gars dañoo war a revoir système bi nga xamante ni moom la ñuy mun a tëral de telle enseigne que ni xam ba kenn du ci gaañu surtout waaw man mi du wax yow damay dawal engin damay dawal engin c'est sûr que bon sama engin dafa am euh, dafa defoon choc moo tax moo tax dawaluñu ko fan yii waaw damay door dóoru parce que man xam euh, ci société immobilière laa nekk en général man maay def recouvrement yi tout ça et je serais obligé de prendre xam nga une moto pour def recouvrement yooyu yëpp xam oto ça serait un peu compliqué tamit waaw en plus oto yi fu ñuy fu ñuy nekk ak par rapport immeuble yi fu ñuy nekk moo tax de préférence dañuy am benn dóoru boo xamante ni chaque fin du mois mu ñuy defar recouvrement yooyu noonu. kon kon mbir mi laalu rek euh, ñiy liggéey ci càq-càq. ci. même dans les grandes dans les sociétés dañ ciy am ñoo xamante ni xam nga dañuy am benn moto boo xamante ni bon peut-être xam nga. c'est bien légal xam nga bu am ay papier xam nga tout ça yaa ngi dégg pour juste xam nga mu leen faciliter transport bi xam nga dem ak dikk bi parce que embouteillage bi xam nga c'est c'est énorme Ndakaaru dafa xat te dafa bari oto en plus y a des travaux partout te loolu yëpp xam nga ça ma ne booy ay góorgóorlu góor lañ ay jàmbaar lañ waaw wax dëgg fa yàlla lii day jouer si ñoom dina jouer seen poche vraiment dina jouer seen famille waaw surtout tamit. ak ñu leen di soxla waaye effectivement waaw. gannaaw ndogalub gouverneur ci doro yi Dakar Dem Dikk itam ajandi na liggéeyam naka noonu procès bi am ay njeexital yu bare ci koom-koomu ndakaaru askan wi di ñaan ñu jeexal ko ci ni mu gën a gaawee.